bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan laa ñaari yoon lii sport la Sénégal la ame ndam li génnul fii il faut ñu bàyyi xel loolu mais da ngay gis ay communicateur yoo xamante ni dañuy wax ba yow yow mi di seetaan sax dangay xam ni ñii y'a quelque chose nga gis ku mel ni Moustapha Gueye jiite jiite di royuwaay te moom wax naa ko ni ko bul fàtte ni sa combat ak Yékini daan na la ñetti yoon ci bis bi ñu ni ci ginnaaw saako yi la lu tax demuloo ni euh, waa ji daan na ma xanaa xamuloo ni règlement sorti bii ñu andi ci làmb ba di ci dagg mbër yi ci mu Moustapha Gueye ak Yékini la jógee ndax daw ya mu doon daw kan est ce que kooku am na prérogative mbërum jàmbur bëre ba pare mu fekk ko fii ci cumikaayam ni ko demal ca demal ca fële ni dañ laa daan ma ne ko déet yow amuloo droit dem di wax ni mbër ma dañ laa daan. Tafa moo ne rëg rek demal ni laa ni daan nga ma. ma ne ko waaw lu tax yow bala Yékini daanee ñetti yoon ci benn ngoon. arbitre ya bañ demuloo wax loolu règlement bii nga xam ni moom la ñu changé tey. Mhm. sorti ci yow la jógee moom royukaay la nit ñi dañ ko am nuñ koy xoolee. Mhm. gis nga yëfi caaxaan yi muy def na ci génn na moytu. parce que dañu seet ni a chaque fois bu ñu ko ci tuumaal ci lu bari ay combat Balla Gaye moo indi kadoon doon ànd na génn ci yooyu na maandu am na droit nag Moustapha Gueye am na droit ngeen déglu li may wax bu baax Moustapha Gueye am na droit lamb am ba pare ñu ne ko Tapha loo gis mu ne ah nangam laa gis parce que technicien la xam na lamb nangul nañu ko ko am na droit wax wax gis-gisam mais àll bii mu ci àndal ak di daw di jël ay mbër di yóbbu ci ay télévision ak di yuuxi tëb di dóor du moom rek moom dafa amul loo xamante ni nit di jaaxal na nit ñi ba tax moom muyoo dóor donc man maa ngi koy wax ni ko li ñu xam bari na na dal piano piano na dal dañu bàyyi affaire bi uh-huh. ci loxo CNG. dangaa siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu jiin booba tuuti laa booba ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb